na ñu bari moom la ñuy laaj mooy ndax Sénégal am na intérêt di bokk ci G5 Sahel loolee ab laaj la boo xam ne assan Samb moo ko laaj la tax mu laaj ko bokk na ci bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar Macky Sall dafa bëgg jël Sénégal dugal ko ci kuréel gii di G5 bu ko defee mu nekk juróom benn cay réew waaye nag Sénégal ndax dina ci gis njariñ docteur ay dara Ndiaye mi nga xam ne moo jiite ONG Partenaire West Africa Sénégal mi nga xam ne xelam tamit màcc na jëm ci wàllum géopolitique ak wàllum sécurité daan nay wax ne Sénégal du stratégie bu baax ngir mu dugg ci kuréel kuréel gii di G5 Sahel ndax nag terroristes yi nga xam ne ñoo menacé Mali menacé Burkina Faso menacé Niger menacé Tchad menacé Mauritanie bokkul ak terroristes yi nga xam ne ñoo menacé Sénégal naam nag jamono ji Sénégal maanaam rëccul ci mbir mi waaye nag jël Sénégal di ko dugal ci G5 Sahel loolee njombe la loolee mën na andil Sénégal ay jafe-jafe yu métte métte en tout cas daal Macky Sall bala musaa dugal réewum Sénégal na ko xalaat ay yooni yoona Assane Samb mu ne est-ce a kaay xibaar naan ñu Ousmane Sonko njiitul Pastef ni démb maa ngi woon ci université de Cheikh Anta Ndakaaru ndax dafa demoon seeti étudiants yi nga xam ne ñoo amoon ay gaañu-gaañu ci jàppante yi nga xam ne doon nañu ko jàppante ak takk der yi yéen a kaay gii di Le Quotidien mu ñu xamal ñu ni ki démb Ousmane Sonko dafa demoon ca université ngir nag ab campagne de légitimité maanaam Ousmane Sonko da wane boppam di wane ne moom la gaay yi a kaay yi ne dañuy tere ay rassemblement démb étudiants yi rassemblé woon nañ Ousmane Sonko ma nga xam ne moo fa demoon loolee moo ko waral yéen a kaay gi di Vox Populi mooy xëy di wax nee na démb bëri yoo xam ne dañu doon jubilé di wax Ousmane Sonko président waaye nag ca geneen wet ga am na ay yoo xam ne dañu doon wax Ousmane Sonko violeur ñii naan Ousmane Sonko président ñii naan Ousmane Sonko violeur ñii naan Ousmane Sonko président ñii naan Ousmane Sonko demal wuyu yoon ñii naan Ousmane Sonko président ñii naan Ousmane Sonko ragal nga yéen a kaay gi dem bi étudiants yi yéen a kaay gi di wal fajri moom xëy dañu xibaar naan ñu Ousmane Sonko dafa violé li nga xam ne mooy mesure barrière yi yéen a kaay gi di Vox Populi Biram Souleye Diop mi nga xam ne mooy administrateur parti Pastef fan yi nga xam ne moom la ñu génn gars yi mënuñu ko jot ñenn ñi jàpp ne dafa naani kën yi maanaam dafa daaw nit ki démb nag daan nay génn ci page Facebook am nee na demul fenn jamono ji ma ngi xaar convocation bu dikka a kaay gi di xam ne moom lañ ko doon tuumaal ndax wax ne dafa daal di daw yéen a kaay gi di source a Diop maanaam doxalin wi nga xam ne jamono ji moom la doxalee doxalin wu ñaaw a ñaaw la ndax Birame Souleye Diop jabaram ji nga xam ne moom la ñu téye maanaam te dikk Birame Souleye Diop demul seeti jabaram lu dul nag fay ay téléphone ba mu neex ko mu taal ay téléphone am naan nag dafa am yu jàmp yoo xam ne moom laa doon lijjantee ana lan moo gën a jàmp yow ñu téye sa jabar daal di koy garde à vue ca dikk division des investigations criminelles nga lànk kandaare bañ koo seeti naan dafa am ay urgence yoo xamante ni moom laa doon lijjante yéen kaay gi di source a nee na en tout cas daal ni nga xam ne moom la Birame Souleye Diop doxale doxalin wu ñaaw ñaawa ñaaw la ndax nag góor moom fu ñu téye lépp lu mu jàppoon mën na koo bàyyi dem seeti ko waaye nag ba léegi ni seeteegu ko xamul lan la nekk yéen kaay gi du l'observateur nee na Birame Souleye Diop daala bu waxee ne maanaam dawul daayul ba pare ma ngi xaar convocation bu dikk waxul dëgg ndax ñi nga xam ne ñooy waa dikk dikk nañu këram ñaari yoon yoo xamante ni fekk ñu ko fa yéen kaay gi de Libération nee na am na benn waay bu tudd Daayiru Caam boo xam ne ingénieur la bokk ci Pastef moom teg nañu ko loxo yéen kaay gi de L'As nee na Abbas Fall mi ñu jàppoon ak jabaru Birame Souleye Diop ak ñeneen ñi nga xam ne tegoon nañu leen loxo ca dikk ngir nag lu jëm ci wàllum enquête jëmale ko ci menace de mort yeeg saaga yi tey jii danañu leen defeere maanaam danañu janoo ak procureur a Barthélémy Dias doomu Sampol Dias ñu xëy fekk ko ci yéenekaay gi nee na nag Sénégal yi waxal résistance daal na leen leer na ab devoir gi di réew mi quotidien xëy wax ci coronavirus bi nekk ci réew mi campagne de vaccination bi danañu ko doora mardi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février yéenekaay gi de jamono ji ñoom ñaar tamit mburoog soow la ñu ndax Doudou Wade ginnaaw bi soxnaam gaañoo Marième Faye Sall dafa demoon doon ko jaale waaye nag Moustapha Diakhaté la àndal Moustapha Diakhaté moo ko gunge Moustapha moo nekkoon porte-parole maanaam moo yoroon kàddu première dame moo ko ci kanamu bi yéenekaay gi nee na passation moo am ci football bi ginnaaw Messi ak Cristiano Ronaldo ay at a ngi nii buñ ne Messi na Cristiano Ronaldo ñooy ñooy jël meilleur joueur ñooy jël meilleur ji dafa mel ni seen wàll ma ngay waaj a wëy jamono li nga xamante ni gis nañu ko mooy alaan mi nga xamante ni moo nekk ci club bi di Dortmund ak Kylian Mbappé mi nekk ci Paris Saint-Germain ñaar ñi boo moytulee ñooy wuutu nag Cristiano Ronaldo ak Lionel Messi ndax li nga xam ne nemmeeku nañ ko ci Ligue des champions bii ñu weesu Messi deful dara Cristiano Ronaldo wanewut boppam waaye nag alaan bu Dortmund wane na boppam moo toj match bi nga xam ne moo doon dox diggante Séville ak Dortmund ki nga xam ne nag mooy Kylian Mbappé moom ti moo toj match bi nga xam ne moo doon dox diggante Paris Saint-Germain ak